asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alamin wa sallallahu wa sallama wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin ginnaaw bu nu sante suñu warum wa taala julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dellu santaat seexul xadim di ñaan suñ boobu tabaaraka taala mu nu ko dellu siyaar bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci biir M-Media Group Nourou Darayni ay bokk yi nga xam ne ñoom ñoo koy teewlu ak barab yu man nekk ak fun man nekk rek way di ndokkeel mboolem taalibe yi waaye mboolem jullit ñi jataay bi suñ boobu tabaaraka taala defal nu ci ak jariñu zaahiran wa baatinan xarawat na sunu bokki soxna yi nga xam ne ñoom lañu jagleel jataay bi moo doon yóbbalu soxna yi jataay bi paase nag noo ngi noo ngi tëjewoon ci xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon na ko ki nga xam ne dafa nama takk jigéen ji nga xam ne day bokk ca ña alquran karim wax ne والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف xaw لقوم يشكرون ki nga xam ne dafa nam ma takk jigéen ji nga xam ne ëllëg mën na caa am al waladu saaliha su boobaa day xool jigéen joo xam ne jigéen ju baax la masalan ki nga xam ne dafa am aw jiwum bu demee ci bu ayee ba bët sibbi mu dem ci suuf soo xam ne suuf su naat la suuf soo xam ne euh, suuf su am yaakaar la bu ci defee aw juum bu gàncax ga màggee rek day dégg gàncax gu naat waaye boo demee ci barab boo xam ne barab bu bekkoor la lu waamee wa tooy tooy wala lu bari bari boo fa jiyee mën naa bañ a sax wala bu saxee gàncax ga du baax loolu mooy wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi isni rabbihi wallazi xabusa la yaxruju illa nakida kon cosaan dafa am solo ci mbir loolu moo tax dëgg dëggi doom ju baax boo ko ko bëggee doo xaar ba doom ji juddu nga door ko yar di da koy tànnal way jur tànn ga nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ñeent yi nga xam ne des na ci tànn soxna waaye nag ba ca ëpp solo mooy borom diine tunkaxul mar'atu li arba'i limaaliha wali xasabiha wali jamaliha wali diiniha waaye biñ ci gën a tàmm mooy borom diine phosphore bi zaati diin taribat yadaat jigéen des ko takk ngir alal des na ko takk ngir taar des na ko takk ngir askan des na ko takk ngir diine boobu nag mooy biñ ci gën a taamu waaye su amee taar te amul diine wala des na su amee di amee su amee alal te amul diine su boobaa des na soo amee askan wu baax te amul diine soo des na waaye nag amee bu ñàkkee yooyu yëpp te am diine rek ñàkkul dara bu ñàkkee attaar te am diine ñàkkul dara bu ñàkkee askan wu baax te am diine ñàkkul dara bu ñàkkee alal te am diine ñàkkul dara loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne wasbar bi zaati diin taribat yadaak zaati diin nag moom mooy ki ñu tuddee almaratu saalihatu almaratu saalihatu loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ca xadiis ba addunya mataaun wa gayri mataa'iha almaratu saalihatu àddina marchandise la wala àddina lépp lu ñuy jëfandikoo la waaye li ci gën ci li ñuy jëfandikoo nag mooy nga am jigéen ju baax yàlla wax ne al mar'atu isa kaanat saalihatu min a'zami ni'ami ala al insan fi dunya jigéen de bu la ci suñu borom baaxee jigéen ju baax mooy xéewal gi nga xam ne mooy gi gën a màgg gi suñu gi la suñu borom gi suñu borom di baaxee nit ki ci àddina moom jigéen ju baax wax na ci beneen xadis wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne Eh, addunya mataaun wal mataau ma yantafiu bihi l waye wa yastamtiu adduna marchandise la marchandise nag mooy loo xam ne des na ko jë des na ci jariñu te it di ci bànneexu waaye li gën ci marchandise min ciy jariñu ak bànneexu mooy jigéen ju baax allati yafrahu bi nazriha mooy jigéen joo xam ne suñ boom bind na ko noo xam ne saay boo ko yow ki nga xam ne yaa ko sañ a xool rek boo ko xoolee da ci mandarga yi jigéen ju baax mandarga yi jikkooy ju baax ataatu ataatun li zawji bil ma'ruf fi kulli shay'in illa iza amara bima fihi ma'siyatun lillahi ta'ala li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama innama bokk na ci mandargaay jigéen ju ah, jigéen ju am jikko ju baax mooy day topp borom këram waaye nag da koy topp ci aw yiw ndax yont bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne buñ waxee topp jigéen ci borom këram kat mooy mu topp ko ci aw yiw mooy innama taatu fil ma'ruf dëppoog yonent bi ah, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat beneen xadis wax ne laa taata li maxluuqin fi maasiyatil xaaliq bul topp benn mbindeef ci loo xam ne day merloo suñ boom subhanahu wa la wala bul topp benn mbindeef ci loo xam ne yow lii suñ boom digal la ko mooy lépp loo xam ne mbindeef daf loo ko digal ak mbindeef mu man doon ci moo xam borom kër la wala ku man doon ci mu digal loo xam ne suñ boom daf koo tere nee loolu bul ca topp benn mbindeef la taa'ata li maxluqin fi ma'siyati al-xaaliq loolu moo tax bokk na ci yi nga xam ne mën naa sabab jigéen tàbbi aljana mooy topp borom këram waaye nag topp boroom kër bi nga xam ne mooy ki lay digal li yàlla digle wala la tere li yàlla tere comme ni xadis bi rek la taa'ata li maxluqin fi ma'siyati al wax na ca xadis ba إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي باب الجنة شئت ne jigéen bu jullee waxtu juróomam waaye woor weeru kooram waaye boppam ba kenn du ko jege kudul borom këram waaye mu topp ndigalal borom su faatoo ñu ubbil ko juróom ñetti bunti aljana bu ko ci soob ci moom rek mu daal di tàbbi kon loolu xéewal la gu màgg xam ne suñu boom subhanahu wa taala baaxe na ko jigéen iza sallatil mar'at mar'atu xamsaha wa saamat shahraha wa xafisat farjaha wa ataat zawjaha xiilan laha adxulil jannata min ayi baabil jannati shi'ta nga gis ne kon yooyu mu lim yooyu muy julli juróomam woor weeru kooram sàmm boppam waaye nag topp borom këram bi nga xam ne attaqi yi siloola ne ko Sëriñ Tuubaa waxoon lool ci la bokk nga gis ne kon topp sa borom kër lu baax la lu am solo nag waaye nag nanga ko topp ci lu neex sa borom subhanahu wa taala ndax ginnaaw bokk na ci yi nga xam ne mën naa sabab texey jigéen mu topp borom këram te nungu gaa topp nag nungu gaa ummatu ci ginnaaw day firndeel ne bokk na ci alaamaatu almaratu saalihatu waaye nag di caageen danga naan comme eh, góor jigéen bu toppee borom këram rek daal di am àjjana tax nga topp ko ci lu neex déedéet bul ko topp ci loo xam ne luy jur bàkkaar la laa taa'ata li maxluqin li nga xam ne lépp suñ borom daf ko xaramal ci ak col wala moo xaraamal ko ci ay takkaay wala moo xaraamal ko ci lees di soppee leneen ak leneen xëy na des nañ ci ñëw beneen bis yaatal ko waaye lépp lépp lu ci sa borom kër bëgg itam ba tax mu xiirtal la ci yow jigéen gi sañ ngaa taxaw lànk lépp loo xam ne ak mooy yàlla la bu la ko sa borom kër digalee boo ko ca toppee yéenay bokk bàkkaar ba waaye nag bu la ko digalee sax nga lànk ngir lànk gi nga lànk suñu borom tabaraka taala moo na ko teree nga taxaw ngir lànk ngir loola su boo yow danga ci am aw yiw kon loolu mooy la taa'ata li maxluuqin fi ma'siyatil xaaliq kenn ci nit yàlla yi mas nañ laaj ma hiya sifaatu allati tarawnaha fi zawjati saalihati allati yuridu an yaqtubaha rajulu ne ko lan mooy melokaani jigéen ju baax ji nga xam ne góor gi mi ngi koy labat ngir bëgg ko takk mu ne ko melokaan yooyu na ci yi bokk melokaani jigéen ju baax mooy ko xam ne day sax ci ndigali suñu boom wa taala waaye nag sàmmonteeg ak julli juróomam waaye nag di ko def sax ca waxtu wa di ko def ca waxtu wa ni may faral di wax ni jigéen war na mën a fonk waxtu julli fonk lool ba nga xam ne dana teg cinam ci kaw taal ba dégg ñu noddu mu dem ba nga xam rosi moo ko des mu dégg ñu noddu mu teg ci la teg ca suuf dem julli ba pare dikkaat door a teg ci cinam continuer loolu jigéen jaamu yàlla rawat na julli waral na koo jaral loolu moo tax nitu yàlla ki tontu na ko tontu ko ne ko bokk na ci màndargaay jigéen ju baax mooy koo xam ne day sax ci jëfi ndigalal suñu borom tabaaraka wa taala waaye nag sàmmoonteeg julli juróom yi rawat na ca waxtu wa waaye nag sori al baid an tabarruji fi l xuruji ila al bokk na ci màndargaay jigéen ju baax mooy mu ndeku li ñuy tuddee ak tabarruj comme ni alquran waxee waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula waqarna jooju bu ko tekkee bu ko waxee tekkiwu ni jigéen dafa war a toog rek rek ci këram du génn du dem fenn déedéet waqarna ji mooy bu amul benn soxla bu mu doxee mu nekk faratal na toog ci këram waaye nag bu ko amee ba génn nag moom wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula bu amee soxla bay génn soxla su ñor soo xam ne faratal ba muy génn bu mu sol lu xat bu mu sol lu yaraax bu mu sol lu gàtt bu mu xeeñ loo xam ne kum romb mu xam ne góor romb wala mu takk ko déedéet loolu mooy wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula nga gis ne jigéen moom su demee bay génn te yooyu mënta ñàkk mu génn su boobaa sax nag day xaraam ci moom bu génn jigéen bu demee bay génn te moytu mënta moytu ndeku tabarruj kum jahi jaahiliyatil ulaay suba day xaram ci mu jigéen mu génn ndax dinaa faral di wax ne jigéen ak colam ñetti sart la na sol lu yaatu bu mu xat waaye na lu fatt bu mu yaraax waaye na sol lu gudd bu mu gàtt jigéen bu ko dara desewul lu may bu génnee sol lu gàtt bu génnee sol lu yaraa bu génnee sol lu xat boo koy war génn wala moo xam ne moo def ci ay bëtam wala lenn loo xam ne lu muy takk wala lu muy xeeñ loo xam ne dafa bëgg ku mu romb mu xoolaat ko xam ne jigéen moo ko romb su boobaa kookee dafa war toog ci këram kooku la ñuy wax wa xar na fi bu yute kun na kon bul génn di def tabarrujal jaahiliyatil ula loolu moo tax mu ne ko bokk na ci màndargaayu jigéen ju baax البعيدة عن التبرج في الخروج إلى الأسواق للتبرج المتخصص بوحني وامس لأجل حاجة دون الاختيال فالاختيال جالب إلى النقل loolu nag góor ak jigéen ñoo ko bokk fal ixtiyaalu jaalibun ila nakaal mu tax say bu génnee di rek na la soxla yóbbu waaye bul génn di ngir taxawaalu wala ngir ku xool wala ngir loo xool déedéet saa yi buy génn rek na la soxla na kon jigéen bu amul benn soxla bu ñor boo xam ne bu man ne bii farata la kooku am moom waa xar na fii bu yotte kun na xam ne am nañuy wax ne soxlaa yonent bi sallallahu alayhi lan ko jagle loon waaye itam loolu mën naa àgg balaw ba ci mboolem jigéen ñi jullit ñi comme ni mu waxoon ne yaa ayyuhan nabi xul li wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina an jalabibihinna dalika adna ay yu'rafna fala yuzayna wax ne yow yonent bi waxal sa jigéen waxal sa waxal sa soxna yi ak jigéen ñi mboolem ñi gëm rek bu ñu génn nanu sol lu jot loo xam ne yudnina an a dalika adna ay yu'rafna fala yuzayna nanu sol lu jot loo xam ne seen benn xawru du génn at xata sax bu dee ci ñenn ña nga xam ne ñun ko jagleel seen xar kanam sax danda bañ ñu génn waaye nag loolu dafa am ñun ko jagleel waaye nag bu dee suñ jigéen ñi tey jii moom ah, doy na war lool doy na war lool kon daal loolu min alamati almaratu salihatu xaj na dañuy taxalu ko allah su benn yoon yi buy dikkee continuer waat ci mandargay jigéen ju baax naka lay mel insha allahu taala di ñaan suñu borom subhanahu wa taala defal lu ak digg ak topp defal na ak jëriñu zahiran wa baat ci ma seexul am xatim salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu lil mustafa xayri xalqi laahi mansilatu law wajjahat nahwa kullul wara xaaru raamal wara nayla fadlin musriina lahu والفضل عند رسول الله قرار